jërë ngeen jëf mbokki internet yi dalee nag jàmm ba tey rek si ay xibaar la sa na a fes jamono ji sa gouvernement Bassirou Diomaye Diakhar Faye ba nu toogeeg léegi rek daanaka muy bëgg a mat ñaari weer ñuy def rek li nga xamante ne si na la nu jot a gën a indi rek si ay résultat waaye nag jamono ji la nu nemmiku nag mbir mi coow li rek dafa daat yi bëri lool seen côté si gouvernement ba bees bi ak na ñuy wéy di doxalee ak li nga xamante ne si na rek ak seen i réaction ak pay yi nga xamante ne si rek jotagul nañ ka tàbbi jëm rek si situation réew mi coow li nag daan na combay jamono ji daal di bëri lool rawatina nag ah, ba fi kooke yi nga xamante ne si rek moo di sans accumulation ngandam fi amoon am kan kooke di Ousmane Sonko def ab conférence de presse foofe sa université sa ICAT Cheikh Anta Diop man na na rek coow la ba tey boobule wulee ñaay rek am jàppal am bàyyil jëm si Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Diakhar Faye sans accumulation jëm nag si euh, tur yi borom ñaari tur yi nga xamante ne si na rek daat nañ woon euh, posé wu aw question lu jëm si kooke di Ousmane Sonko ak nam sa tonte waaye nag mën nañoo jàpp ne bam sa tontoo ba léegi rek coow li rek dana na combay jamono jii rek. kenn ku ne rek eh, di si indi say kàddu ak nanka ka gisee ak say réaction moom si kookee di Ousmane eh, Sonko ba tax na rek ba tax sax ñu jot see neemiku li nga xamante ne si na sax moo di ay arrestation daanaka rek ba tax rek ñu daal si téye ki nga xam ne kan si jëkkatee mën nañ na rek si nguurug Bassirou Diomaye Diakhar fay mu doon kookee di ba Diakhaté nekk ab activiste moom it nu ràññeeku lool si ay laay fam ak si émission yi xamante ne si na daan na ko def moom nag mu yëkkati ay kàddu tuuma yu xamante ne si na rek ku ko dégg rek daal di taf say nopp mu doon ay kàddu yi doy waar lool ba tax na rek loolee di procureur du DIC daal di auto ñu taal di rek jàpp ka nga xamante ne si rek moo di Pa Jaxate sa wax yooyu xamante ne si ne daan naka wax mu doon ay tuuma soo sos yu xamante ne si ne rek jëmale naka si kooku xam ne moo di premier ministre ba sanan ka daal di toppee ndax si noone nag teguñu sa dara nag ñu ne ña ngay topp wala ña ngay wër ki nga xamante ne si na rek moo di euh, Cheikh Ahmed tiijan ndaw ñu ràññee lool moo it mu doon ak kilifa diine bëri lool ay waaraateem ñu bëri tamit di ko topp si loole waaye nag taxul. ba mu yëkkatee kàddu te jëmale ko su lu mel noone wala sax mu àddu sa yooye la kàddu jaar sa rek ñu ne rek moom it nas ka daati arrêté moom kooku di Cheikh Ahmed Tidiane Ndao ndax kàddu yamu yëkkati jëmale ko rek si kooku di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ba tax na rek moom am na ñu mu metti lool sa yooy la kàddu daat nag uh, yëkkate ba tax rek procureur tamit daal di foofu ñu daat kay daat yi uh, teg loxo moom it kooku di Cheikh Ahmed Tidiane Ndao nag si moom it tey jii rek si fajar las ka daat yi uh, teg loxo mu doon ay mbir yoo xamante ne si ne rek jamono ji la Sénégalais yi ñu ngi koy waxtaanee ah, partout rek si biir réew mi ak bitim réew si li nga xamante ne si na moo jot si li nga xam ne moo jot a am rek si gouvernement bu bees bi kenn ku nekk sa réaction ak na nga gisee ah, loolee ak jamono ji li nga xamante ne si moom la ñu commencé gën a gis jëm si wàllum ay arrestation ñu daat ko si euh, commencé dégg si ne mu ba tax rek kenn ku nekk say analyse ak naka nga ko euh, gisee ndax yoon la wala du yoon ba tax na rek ñu ànd ak Ousmane Sonko ñoom it da ngay jàpp na rek mbir mi daal trop sa trop ndax nag jàpp naan na rek ba ñu toogee ba léegi. na nga leen di si ak di yëkkati ay kàddu yu ñaaw rek di ko teg seen njiit yooye ba tax na rek ñoom ñu daal say mer ba fut